yow xuccaw xadi gay yow mu leetu ay fiil yaa ma gënal maag yéen bay mu dem ba fay faal jolof fuut ku ko seetaan yàlla na nga déggee maam ni xolal eteen bu fi ki gay ndëwër ak ragal du fanaan fiit wa day maas palampu kay jox ma résultat ya yow mi fanaan naan bëri bal taxuta mën a jam ab fi tay fetel na bëri doole taxuta mën a dóor ab fi tay dóor te yori xobam bëgg meññi doomam yi lu ko waral pa lamp yow yaa ko waral say buddi guy bu lu xaar ren ba daa dëgër ndax bëre ba bukkeeg mbaam gémmin ga daa motul doom waral maas eey tabax si bi xolal xar xartum mbaañu xar si digg bi mbaañu xar la yow dama doon dama trop dama doon nelaw wala tabaski bi waaw loolu kay xam nañ ko pour que jëlee caméra yi di xew xam ngeen di xew suba la tabaski waaw wala too teel a moo leen di xar mi waaw bëgguma mu ñëw fii fekk fi dara dara takk ci kër gi waaw bëgg naa waaw kër gi nga bare ko ba mu set waaw yow jëlal jëlal fi jëlal fi fi fan soo bi poste bi poste bi ci kaw dans sa paax yi su ma rendee ba fes ba ba pare ci paaka bu mag bopp xar bi nga fekk ci paaka yi waaw laadum la ñetti paakaat koy fes bopp bi rek ñetti paakaat paaka bi xanaa li nga koy daasee mën na jënd yeneen yu bees dëgg yàlla yi sama lii lii aada cosaan la lii waaw lii xar mi war a ñëw moo tax ñu naan dañuy garaame naan waaw nga nale ah waaw bembe fanal nag ñëw tawas gi muy ñëw sa sa kër nag defar ko wala mii waaw ci guddi la dem ba ci néegam bee. jubóog moom. ginnaaw ay jàmm. te maag ndeyam ñoo bokk ndey ak baay. dama laa bëgg nag maa jege. dëgg la boo demee jërë gi dëkk ba damay wéet. waaw maag ñaar ñi ma ne ni jaay dootuma ci dem. fii biir kër gi. di ko dund ak bébé fa mooy sama xarit bébé fa dem. waaw. waaw waaw waaw fii laa toog bëgg bébé fa naka ñu ngi koy iya. dund loolu eh? waaw léegi nag xam nga bëgg waaw dara xar bi waaw da nga may dagg pont fii pont fii pont fii wékk wékk yeex iya, na bé fa lay lay sax yow xar bi nga ne biñ lay jëndal est-ce que tamit nag der bi dina xaj fii laa dum la lay jëndal ça dépend bu ñëwee rek waaw waaw laa dum la rek laa hmm. dum la eh. la la la dama dama dama dama daas dama daas defal ma fii fii fii na kër gi set na kër gi set wécc wécc wécc wécc wécc bu dama bëgg bu dugg si rek kontaan waaw

joxo jox càmm ngeen Linguère waaw waaw waaw ma ne rimbi rimbi coow du ko def. waaw ah, ñi may yéene wul jàmm. waaw eh, Ablaye Ndiaye. waaw ah. Ablaye Ndiaye. amoon eh, kay. amoon yaas leen. lu xew lu xew lu xew. wari doo nee na. Ah. waaw moo may indi laadum. waaw dama bëgg sama noon di mer. waaw sama soppereeta am yaasa. waaw am yaasa. yooyu laa xam lan la génn leen xam ne lan la waaw tabaski bu musaana jot waaw dañ may yéene sarax damay yéene ay yalwaan waaw waaw tey yàlla daa ñëw ak mbiram laadum laay am waaw bu nga daam ay béjjën. waaw damaa bëgg rek nga toog ni xaar sama laadum. waaw waaw kooku nag waaw waaw. mais mais mais mais. warito warito warito. warito mooy lan sama sama sama locataire. waaw dama leen a laadum. laadum mais nag mais laadum moo tax damay arrêté yow. tooga xaar tooga xaar rek tooga xaar. bu baax yi nii bu baax yi nii. Wah, wah, wah, wah, buka angka sih. Oh, buka angka sih lah, buka angka sih lah. Ambias, ambias, ambias. yónni sa xar maa ngi nii na ma trop ci yoon bi. ngeen la. damaa bëgg nga jox ma paas ma ñibbi ndax nee na su ma ñëwee di nga ma jox ñaar téeméer paas. muy sama lay. ko seetaan yàlla nga déggee maam ni xolal eeteel du fi ki gaynde wër ak ragal du fanaan fiit wa day maas palampu kay jox ma résultat ya yow mi fanaan naan bëri bal a mën a jam a fi tey fetel na bëri doole a mën a dóor a fi tey dóor garab gu taxaw te yori xobam bëgg meññi doomam yi lu ko waral Pa Lamp yow yaa ko waral say buddi guy bulu xaar ren ba daa dëgër ndax bëre ba bukkeeg mbaam gémmin ga daa motul doom bi waral maas eey dabak si bi xoolal xar xartum mbaañu xar si digg bi mbaañu xar la yow